chantier bi ñu njëkk am euh, président de la république initiative am dénk ñu ko jaarale ko ci ministère de la culture direction du livre et de la lecture supervisé ko moy ñu fexé bu molat tafsiru biya yaa u nayreni bu maam alaaji ahmad dem bu sokkoon di 10000 pages ci arab Yalla def nak expérience bi nga xamné ne alburax am ci walu mindum arab ci artisanat bi yépp keroog bañ ko joxé chef de l'état ci sokkoon mu ni naka la ñu def ba liggéey bi ñuy jéggaani bitim réew ñu mën ko am fii ci suñu réew ndax mool nañu diwaanu maam Abdou Aziz Dabakh téere Thierno Mountaga al Jawahir wa wa Durar ñu gis ni tey occasion la ñu gis ni constaté ni mbindum mag ñi mi ngi yàqu ci réew mi te patrimoine la boo xam ne kenn xamul naka la toll ci la édition Alburax porté combat bi dem seeti kilifa diine Sénégal yëpp gis ngeen tey unité bi nga xam ne tey kilifa diine yi def nañ ko association islamique yi imaam yi lëkkale seen bopp nekk benn ñëw fas yéene nag dekkal mbind mag ñi ñu def si benn plaidoyer bu am solo dégg ngeen tey kàddu yi nga xam ne jóg na fi ci këru diine professeur Abdou Aziz Kébé li mu wax te mag ñi binduñu rek ci euh, diine dañoo wax ci philosophie ci littérature loolu yëpp nag nekk loo xam ne dafay jëriñ tey askan bi rawatina génération bi ñu nekk ñu xam ni dañu am histoire dañu am écriture dañu am valeur lu bëri nasaraan yi yóbbu woon ko bitim réew. mu jot nag jeunesse bi xam naka lañ ko mën a defee ñu am nag li nga xam ne programme national de recensement programme boobu nag dañu bëgg a xayma dañu ne soxlawuñu manuscrits yi ndax dafa mës a problématique ndax koo laaj manuscrit rek mu foog ne dañ koy jël yóbbu ko ñu ne déedéet téye leen seen i manuscrit lan la ñu bëgg defaral leen ko xayma xam lu kilifa diine bu nekk bind ñu def ko ci plateforme boo xam en français anglais arabe ko soo bëggee xam lu mag mi bind ci fànn bi mu ko defee nga mën ko xam deuxième phase bi nag muy restauration bi lay yàqu ci këru diine yi ñu fexe ba defar ko nga xam ni euh, loolu yëpp tamit xam-xam la beneen bi nag mooy valorisation bi édition ak lépp nga xamante ne tey taxawaay bi nga xam ne direction du livre tey wane na ko def ko wane ni tey këru diine yi dañu am benn wàll boo xamante ne tey mënuñu leen. ci patrimoine culturel Sénégal mom lañu bok lolo tay édition édition le colloque direction du livre et de la ñomit ñu am benn ubbeeku comprendre xamni li ci patrimoine bi la bok ñu def ko ci biir insérer ko mu doon un programme bo xamni point de départ la tay amna na jéego war nañ def ay atelier waxtane point yi ñu leen wax amna film documentaire bo xamni def nañu lancement bi tay wan leen li li lañu bëgg dem këru diine Sénégal yépp ñu xayma lii patrimoine u Sénégal la mooy solos bis bi tey ci li nga xam ne tey euh, woote woon nañ ko